dangin danginu dangin ma kan? dangin ci kër gi iya, dangin ah Cheikh ah, buy ma kër gi ko la amu fi dangin amu fi waay iya, kër maay ak mu tap téere maa yàlla maa ko ñu ko ko dangin Cheikh ah, baal ndox guddi kër mbaay billahi joomiw ma nga ni billahi am ak tap téere maa yàlla li ma dangin ci kër gi nga ni dama dangin man kay man kay dem kër mbaay lu ma doonee sama baay pare mu baay doon sa baay du tax nga gisu dangin yow mi doom may dem di wëri dangin dem ma sécurité kër gi yaa

fekk ma yor sama njàmp di waaj a sangu ci hmm. moom mii hmm. mu jël njàmp ga di ci raxas ay dàll naan lii njàmpeeg dàll la ak i bool léegi daal man maay boolu yeeg njàmpe li loolu amul problème mën naa koo miis ah mbaay seex yow booy wax di duul booy wax di duul tey boo waxee ma foog na lab sar léegi ndànk ndànk guddi nga nekk nga guddi nga nekk kii la yow kii juróo ko kii doomi Raam la Raam Ndiaye moo ko jur Raam Ndiaye moo jur booj bi. Raam Ndiaye man eh xoolal bu ma fonto nga naan. beneen bi doom nga naan Raam Ndiaye. ma ma rek. indi na fii man booy ba man xaw ma ab dangin moom kooku man xaw ma man daal. kooku lay nduróol nag. booy boobu nii nii moo tax la dangin la. munoo ma développé booy. yàq kii sa bàyyi la bu ma fonto dafa nduróog dangin. bu ma fonto déglu. parce ko gisee. mu ne man mu bi maa ko jur naa naan ko dégg naa mu naan ko ay sa baay bi réeroo nag sa baay man la daal man damaa yor sama geño gii di wër xale yi jigéen ñi. Ah, ah. ku ne ma këmbax la ko. ma ne ko loolu mbaaye a baay moo koy def. astafurlah lu ànd déglu ma rek beneen bi ci def. sëñ Khalifa Fall moom sëñ Saliou Fall. Hmm. jox ma saafara si hmm. man ne mu ne ma bu suuf seddee. waaw na sangu may sangu mu ñëw naan man maay dangin gi. mais Ibrahima Ndiaye tama benn mbir dafa am yow yàlla def na kilifa nga. booy sangoo saafara nga dem ci ruq bi waaye yow gàtt ñuul nga cuqaaral nga say bët nee na boo xasee xool doo xeef dégg nga lii boobu moom bu fekkoon man ma man nii maa ci yam sax damay daw dégg nga kon nga dem ci ginnaaw ci ruq bi xam naa fa nga jëm bu baax daa may dégg mm. ndax lii ngay lem leebal bu yàggee rek nga wax ma nga bëgg nga wax li nga bëgg a wax waaye yow yow waaye yow nag yow yow mbaay yow mbaay yow wut yow li la wute lekk ay golo bëriwul gis nga boo boo ma boo ma waxatee laa delluwaatal ñu ma golo. Ibra nee ma golo. diglu ma nee ma golo. sa doom moo tax ngay def li yow xam nga ma. maa tey xam nga ma. maa tey ma bu dee réew ma la xam nga ma. maa tey attaqué la boo ma waxee golo ma def la lawaata dama lay yéeg. boo fa waxatee golo ma wax la li ban di nuyoo ak li war a nekk ci ko. doon nag. meew mi nii. saay saay bi wuyu baaj. xam nga ma de.

man ngay wax yow laay waxal doo tus yow nag ku ma yàpp nga waaye ba subaay barke billahi bee boo sa xare bii nii ma xoolaal ko bu baax yow xam nga juróom ñaari maama barke yàlla xoolal bu ma ko xoolee nii billahi dangin la ma jox boo def ragal da nga du toog kii day soppiku nga ni ma tàpp téere maam yàlla day soppiku dangin nga gis waaw kan baay foofu la newoon kan baay da ngay def kan baay ñu gunge ma wax na basul kan baay baay gunge ma kenn ni li waaw beneen problème am dam ndaw dam fam ñu ñu xasse nelaw rek nelaw nañ ko wax ñomit daa ngi daa ngi ñoom mu tëdd bu suba rek seen lu sa yaram ñëw rek sa yaram ñëw ko te sax permet yaa ngi ma e saw ci biir néeg ci biir néeg bi saw leer laa saw ci bu raayee sax ma